sëy nag ci yooyu la bokk sëy ci yi nga xamante ni nii léeg-léeg day toll foo xam ne day nekk farata ba sañoo ko ñàkk bañ a def sinon ay yeddaange ba ay duma sax bàyyi ko ci boroom bi tegu sa kaw yow léeg-léeg mu toll foo xam ne moom dañ koy sopp rek boo ko defee baax na bu la neexee nga ne man du am benn jabar bu la neexee nga ne man du am jabar waaw te dara du la ci fekk léeg-léeg sax mu doon koo xam ne lislaam day téye loxo moom ne ko yow mu loo fi amee jabar yow moom doo doo fi takk yow yow moom du farata ci yow yow yow boobu non seulement du farata waaye boo ko defee sax yeddaange mën na la cee fekk ko def ñett ñii la nag ci ki nga xam ne lislaam da ko waral ci kawam daa nekk farata ci moom su ko defut day am yeddaange kooku mooy ki nga xam ne toll na ci dëglul condition yi tollu na ci maanaam doon na xale bu góor waaw mu ngi ñaq mu ngi yëg waaw mënal na jigéen dara ba noppi nag ñàkkut lu mu takkee ñàkkut lu mu takkee maanaam wax dëgg ak yàlla mën naa góor góorgóorlu ba am dara ñetteel ba mooy mënta muñ jigéen ñi muñ jigéen ñi waaw mënta muñ maanaam day day am aajo ci jigéen ci am aajo ba su ko yàlla dimbaliwut rek mën naa euh, euh, tàgg ci ak mooy yàlla kon léeg-léeg situation yi day toll foo xam ne maanaam yow dangay nekk en da nekk ci danger si sa ñàkk takk soxna ku mel noonu nag bu toogee ngir ragal mbaa yaafuus mbaa dara takkut ba tabb ci musibay njaaloo bu ñëwee yomal xiyam suñu borom dina dëkk bu baax a baax que yàlla tegaloon na ko ay situation yu ko mënoon musal fegal ci mooy yàlla bu toll ni njaaloo kon kooku ku mel noonu koo xam ne mu ngi yëg mu ngi sentir affaire yi mu ci am aajo dégg nga ñaaral ba mooy nekk na xale bu góor bu wér feebar dara dalu ko beneen ñetteel ba mooy dégg nga euh, ñàkkut wax dëgg yàlla situation ñàkkam eggut ci mu bañ a mën a yor jigéen ku mel noonu wax dëgg ak yàlla bu takkut ba tàmb ci njaaloo moom borom bi dana ko mbugal kooku ñàkk takk bàkkaar lay doon ci moom ak mooy yàlla la ñaareel ba mooy ki nga xam man nako manam ñak ko man man na tak su bëgge tak man na wuti legi mu tak ndax mu ngi liggey di kër kër yi ñaaral ba it nag moy febar dara dalu waye ñettal ba ci la muccu moy mom affaireu jigéen mu sonalu mom am ko ñak ko moo yam ci moom sonalu ko dal man nako muñ bañ nako ba sequl ak xale yu jigéen dara nekk fa di xol mbaa muy doxaan mbaa muy sekk ak benn affaire dal mom dal amul ak affaire yi dal ci gattal ku mel noonu day lislaam du ko poñe ne ko faaw da ngay takk ngir ne man nga ko majeur nga toll nga ci déedéet lislaam da ko naan comme yow daal mbirum jigéen sonalu la yow dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin donte condition yëpp daje na ah boo takkee moo gën de waaye boo takkoon nag amul problème amul problème kooku sëy wàccuwaayu lu mu sopp muy mustahab lay am ci moom te loolu nag lu jafe la suñ jamono jii nii ñetteel bi mooy ki nga xam ne sëy dafa dañ koo sib ci moom dañ koo mu def ko mooy ki nga xam ne donte yëpp daje na maanaam condition yëpp daje na ci moom waaye mënta yor jigéen mënta yor ndax day dóore day saagawe day fasewaate day toroxal jigéen daal maanaam maanaam feebarul dara dalu ko wér na wér na dara dalu ko ku feeb feebarut am na it nag ñàkkut am na lu mën a yore jigéen waaye mënta yor jigéen kum takk balaa weer wee jeex mu dóor la saaga la damm say bëñ kajj la bule la génn la gërëm fase waaw moom daal noonu la mel waaw day mel ni kuy ñamantu daal day mel ni kuy dalay takk bu ñamee rek xalaas indil la problème créer la toroxal la ba nga ne tott delloo la say mbokk def ko defati ko dem ba loolu nekk jikkoom kooku bu leen ko may soxna lool la Ali ibn Abi Talib wax Ali ibn Abi Talib dafa am ku meloon noonu ca Kuufa mu dem joge Medine dem ba Kuufa yek ci minbar dal di khutba ba agal dal di diw sangam addu turam directement ne diw sangam bu len ko mayti sen dom yi ndax day gatchel jigéen day gatchel jigéen day wer jigéen bu len ko mayti jabar ku mel nonu ko xamne man mënta yor jigéen da koy toroxal da koy dor da koy mettital de nga ko kenn du ko may jabar soko ko bu ko may sa dom de nga ku mel noonu dañu sip ci mom mu takk jabar koku mu tok bu de bu de da febar na faju ji bu de da am con mu dem ñu faj ko dégg nga ba mu wér ba mën a supporter jigéen mu doog ko may jom parce que jigéen nag nit la boo xamante ni nii yàlla fonk na ko lool kenn waru ko toroxal ku mel noonu dañoo sib ci moom mu takk soxna mu des ñet ñeenteel bi mooy koo xam ne dafa xaraam ci moom ba xaraam ci moom mu takk soxna mooy koo xam ne condition yëpp dajana na waaye mënalul jigéen dara mooy daa yoom wala daa ngemboo galaas wala baara juuf ba ca biir tubay ba du dox du fonctionner ndigg la daal melut noona ay ay ay mbiram daal courant day courant daa coupé bokk ci gàttal courant daa coupé ku mel noonu moom dafa xaraam muy takk soxna moom bokkul ak nag ki nga xam daa am faiblesse sexuelle bokkul ak loolu impuissance sexuelle moo am ak faiblesse impuissance mooy koo xam ne courant bi coupé tamit am koo xam ne courant bi coupé mais day faible daal lamp yi du leer trop waaye nag am na courant boo ko laalee mën na laa maas waaye courant bi amut doole. mooy koo xam ne day sëy waaye day gaaw a yëg boppam jigéen ja muy sëyal mën na bañ a dara waaye nag wax dëgg yàlla kooku mën naa am doom lu mu dee dee am mu tane bu amee jigéen ji ko mën a muñal mën naa nekk ak moom ci loola waaye bokkul ak ñi nga xam ne moom du fonctionné dara moom kooku moom dafa xaraam ci moom muy takk jabar ndax bu takkee sax na day sonal ko jigéen kii donte am na alali adduna ak ci biir bu te am na ñu muy dal ñuy takk man gis naa ay nit ñoo xam ne feebar yooyu di dal ba noppi ñu takk jabar ngir suturaale ko seen bopp su ko defee xale bu jigéen ba day nekk di mooy yàlla ca biti te moom bu ko yëg te loolu musiba la loolu bàkkaar la loolu lore la loolu lor sa mbokkum julit la yonent bi ne laa darra wala diraar kooku dafa xaraam ci moom mu takk mu takkee day am bàkkaar kon ñetti wàccuwaay yii mooy att bi nga xam ne lislaam jox na ko bépp sëy